أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كاشف الغمة وصلاته وسلامه على شفيع الأمة وعلى آله وصحبه الأئمة ومن تبعهم بإحسان واسترشد برشدهم إلى يوم القيامة مشاهدي ومشاهدات Leuz TV asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñi nga xam ne yéen a baaxoo di seetaan seen télévision Leuz TV seen jotaayu waxtaan daaw ak diine ñawaat na gannaaw bi ñu sante yàlla julli sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nuyu kenn ku ci nekk fa nga toog lañ lay fekk jox la loxo jaajëfal la sargal la te itam di la ñaanal yàlla li ñuy ñaan ñun ñëpp yàlla nañ ko bokk incha allah si yoon wi nga xam ne moom la ñuy jaar. ndaw ak diine na comme ni mu baaxoo dafay faral di jël ay tomb di ko waxtaanee tomb yoo xam ne njëriñ li dafay dellu si askan wi njëriñ la dafay dellu ci kër yi waaye njëriñ li dafay dellu si tuut tànk yi tey nag dañu am benn tomb boo xam ne bëgg nañ ko waxtaanee muy tomb bu am solo tomb boo xam ne bu jar a bàyyi xel la maanaam yàqu-yàqu wala wàcc gi nga xam ne jikko yi wàcc nañ ko inxitaatul axlaax wala boog inxitaatul xulux yi yaay xool noo koy tuddee moom la ñu bëgg waxtaanee pour waxtaanee loolu nag am nañu mbokk moo xam ne ndonga daara la gëstukat la waaye itam euh, jàngkat la boo xam ne mi ngi ci waar wi di jàng muy suñu mbokk suñu mbokk mu am solo macha allah muy mbokk Issa Issa Diop nga xam ne mi ngi jógee ba Tivaouane Pël Euh, ngir ñëw pour war a waxtaan ak ñun ci kàddu googu wala boog ci tomb boobu kon dañ koy bàyyi mu nuyu ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Leuz TV kon sëriñ Aïssa asalaamaaleykum wa rahmatullah. aleykum salaam wa rahmatullah Saas Birane ñi nuyu téléspectateur yu Leuz TV yëpp di rafet lu wax dëgg yàlla seen programme bu am solo bi ngeen def tuddee ko ndaw ak diine ndax daf di concept bu am solo ndax bu ñu xoolee depuis société primaire yi suñu maam Adam ba tey. fu rangoo ñu diine masa toqi rek ndaw moo ko fomp mën nañ ci joxe portrait yu bari ci alquran waaye ñu doyloo ci loolu ci qissatu asxaabul kahfi innahum fidyatun amanu ak ya ca des ca yonent yàlla yusuf ak yonent yàlla ibrahima ak ñépp kon mën nañu wax ni ndaw ku am solo la ci pénc waaye ku am solo la ci diine isa tey bu ñu waxoon tey wàllu mustalax jikko mooy lan bil mustalax al lugawi maanaam jikko lan mooy jikko. Mhm. waaw c'est important ndax dañ ni baat bu nekk dafa am définition dafa am maanaam nuñ koy tekkee maanaa jikko bu fekkee dañ ko doon tekki ci eh, linguistique bi maanaa ci ci ci baat bi eh, dafa dellu ci li ñuy tuddee ab taban wala asajiya maanaam li nit eh, am habitude di ko def soit mu nekk nature ci moom. wala mu nekk loo xam ni da ko baaxoo ñu koy tuddee tradition loolu dinañ ko firee jikko ci sens littéraire bi mais bu dee ci charia al islamiya ni mu gisee jikko maanaam dafa nekk majmua boo xam ne benn ensemble boo xam ne mbooleem sifa yi maanaam mbooleem melokaan yi ak mbooleem chiyam yi te mooy valeur yi daf ciy daje pour fexe ba ñu mën a forger nit ki ba tabaxal ko comportement boo xam ne dina mën a dund ak boppam dina mën a dund ak société bi muy dundee xëy na bari na ay définition mais loolu benn la ci tënk yi nga xam ne mën nañ ko jox concept boobu ñuy tuddee jikko. kon jikko si wolof mën nañ jàpp ne tuddul jikko waaye mooy jikko jikko baykat bi xam na lan mooy jikko mooy li nga jël da nga jël sa jiwu gerte la wala dugub la wala leneen fekk bàq bu tooy nga jël gas ba mu xóot nga dugal ko ca mu sax di màgg di jebbi ba mën a meññi loolu mooy jikko kon tuddul jikko waaye jikko la tudd. doguma la sax mais arab yi dañuy leb ni al axlaaq maxrus rabbaani maanaam li ñuy tuddee jikko nee nañ plante la boo xam ni yàlla da ko jox nit pour mu reboiser ko maanaam mu jëmbat ko mais ku ne xam na ni garab doo ko jëmbat rek bàyyi ko noonu mais faaw nga arroser ko faaw nga wut engrais pour yeneen yi nga xam ni war nañ ko mën a lor pour mu mën ko traiter pour mu mën a am ay branche mën a am ay xob mën a am meññeent. mais jikko itam buñ ko buñ ko arrosé wul rek xëy na dinañ ci ñëw ci kanam buñ ko arrosé wul rek plante boobu noonu dafay dafay disparaître. yaay ban rôle la am si jikko. xam nga ku ne am na solo ci wàllu jikko mais wala fi dañuy léeb baat boo xam ni dëppoo naag lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax xam nga léeg-léeg wala fi wax ni léeg nga bëgg jubbanti bant wala nga bëgg a jubbanti xale mu të ñu ni bu ci sonn parce que weñ ngaa nga bañee ca mbànjaxaan nga lan mooy mbanjaxaan mooy mooy ki nga xam ni moo jur xale bi te mooy yaay xam nga Ahmed Shawqi dafa wax ne al ummu madrasa wane ni première école du bi ñuy jàngalee bu nekk quatre murs mais première école mooy mooy ndey parce que mooy école bi nga xam ne bu ñu ko préparé lu ca génneti baax mais bu échecgee lu ca génneti échec moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni ixtaaru li nu tafikum maqarran parce que fa innal uruqa dassas nee na même seen ngeen koy def parce que du n'importe quelle femme nga war a denc ndax nee na sidit dafay royaat. waaw sëñ Issa jigéen bu baaxee ndax jigéen dañ jàpp na ci moom la ñuy la ñuy la ñuy tàbbal jiw wi waaye jiwuñ ci tàbbal bu baaxul nag maanaam góor tamit bu baaxul ndax jikko dana baax. important alquran dafa wax ne wal baladu tayyib yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi waaye walladi xabuta laa yaxruj illa nakida illa nakida ma ne bu ñu nee baladu tayyib mooy jigéen mooy mooy tool bi waaye grain bi ñuy ji ci tool bi mooy góor mooy jiwu bi te jiwu nag bu baaxulee euh, boo ko yóbboo ci euh, tool lu tool ba baax baax itam mën na am problème waaye tool itam bu fekkente ni baaxul lu jiwu ba baax baax mën na am problème comme takaamul boobu la ñu yàlla di jàngal complementarité bi war a am entre góor ak jigéen parce que ñoo war a construire société waaye itam ñoo war a former ki ñuy tuddee ndaw ki ñuy tuddee xale. jërëjëf Seydina Issa kon waxal nga ñu ne mbir mi nekkul rek benn phase mais ñaari phase la jigéen am na ci wàll wu am solo ndax mooy yaay mooy jur moom lañ jàppe ne moom mooy tool bi jiw yu war a sax waaye nga xamal ñu ne góor tamit am na si rôle bu gën a amati solo ndax moom mooy jiw wi ndax dañuy wax ne waykatu arab dafa wax ne wa idan nisaau nachana fi ummiyatin rada ar rijalu jahalatan wa xumula mu ne jigéen ñi bu fekkente ne fa ñu formé woo baaxul lu jigéen ci ñoom du mën a baax waaye léegi nag kon tey yow bu bu doon ñëw nag xam nga loolu laytaay la sëriñ Aïssa tey boo doon wax yàqu-yàqu yi am tey fan nga koy mën a féetale foo koy farale yàqu-yàqu yi tey ñëpp a ngi posé question di laaj fan la jógee ci ban côté la yàqu-yàqu yi amee mais man su ma doon tënk damay wax ni yàqu-yàqu yi tey ci mbooleem secteur yi actuellement feeñ na fa surtout ci wàllu éducation ndax ki ñuy tuddee ndaw tey xam ni mooy yaakaaru société mooy yaakaaru même ñiy def politique mooy yaakaaru ñiy def diine tey ndaw boobu noonu nekk gi mu waroon nekk acteur am na lu ko empêché tey ba mënu ba ba ñu ci bëri tey rôle bi ñu war a jouer mënuñu ko jouer parce que dañu def li ñuy tuddee déraper xam nga ci laay delloosee ci baat bi nga xam ne mooy thème bi la dégradation des mœurs lan lan mooy lan mooy lan mooy al inxitaat parce que inxitaat bu ñu ko waxee mooy nuzul wala hubut bare na ay ay ay synonyme nit ki wàcc ci yoon bi ko rëddaloon bu ma nee inxiraaf par exemple mooy chauffeur bi yore code bi di dawal bu demee ba déraper wala def infraction loolu dañ koy tuddee dérapage buñ ñu nee inxitaat mooy ki nga xam ne dafa sëfoon benn yan ba yàgg mu sippeeku ci loolu mu sëfoon buñ ñu nee al inxilaal nag mooy ki ñu yeewoon ci benn valeur mu xëy fecceeku ci loolu moo tax ñetti baat yëpp inxitaatul xulux yi dañ koy wax di wax inxiraaful xulux di wax itam al inxilaal maanaam yooyu ci wolof mooy jikko bu fecceeku maanaam ki nga xam ne dafa am lu ko tënkoon mu tinkeeku mu tinkeeku maanaam ngor da ko tënkoon mbañum rus da koo tënkoon fii laa juddoo fii laa yaroo du ma fi def luñ may xeebe da koo tënkoon mais lépp léegi amatul yëpp amatul tey nan la ñuy def pour mën a dundalaat loolu waa xëy na bala ñu ñëw ci solution yi sax danañ ñëw ci yàqu-yàqu yooyu nga nga ma junj sànq tey mën nañu wax ni eh, ndaw yi bari na ay yàqu-yàqu ci kër yi ci école bi ci ci surtout média bi média bi waroon na nekk moyen boo xam ne dinañ ci jaar pour mën yar nit mais tey média bi dafay manipuler ndaw yi mais gis nga tey yi ñoom la ñuy utiliser ci yenn théâtre yi di leen jouer la yenn rôle yi ndaw yi aussi itam ñi ngi ci internet bi au lieu que mu nekk moyen bu ñuy bu ñuy jàngee di ci gëstu mais léeg ci côté bu négatif parce que yàlla lu mu bind lu nekk wa min in shay'in xalaqna zawjayn lu ne yàlla ñaar la ci bind lu positif ak lu négatif mais tey ñi ci ëpp ci ndaw yi le côté positif dañ koy xaw a banaliser mais côté négatif ci la ñuy gën a. Euh, loolu dinañ ci ñëw loolu rek temu boppam la. thème boppam la mais dañu bëggoon rek surtout ñi gën a ñi gën a ñi gën a taxaw ñi gën a taxaw ci yàqu-yàqu yooyu xam nga wax nañ sànq waajur yaay ak baay li ñuy def ci li ñuy def ci société bi li ñu def ci yàq ji. mais tey booy xool tamit euh, fa nga xam ne fa la fa la fa la weñ nga fu mu gën a bañee fu gën a bañee mooy ci sëy te loolu bëgg nañ ñi gën ci gën ci ñëw maanaam yan yan jikko mooy yi nga xam ne moom lañ doon gën a séentu moom lañ doon gën a yaakaar si ñaari way dencante ba lay jógee ci ñoom lay jugee ci ñoom jikko jot duñu wax ne kii kat amat na. xam nga ñaari way dencante responsabilité lañ leen denk ba ci jëkk mooy responsabilité yar nit ki. te yar bi dafa ëmb ñett mooy faaw nga enseigner nit ki faaw nga éduquer nit ki faaw nga forme nit ki looy jàngal nit ki mooy fexeel ba jàngal ko valeur loolu yàlla wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam iqra wa rabbukal akram jàngal ko jàngal li ñuy tuddee valeur morale parce que morale moo yore société jàngal ko aussi itam euh, naka lay comporté woon li tubaab yi tuddee savoir vivre nooy nooy nooy dundeek ñeneen ñi savoir fair nooy waxe parce que léegi dañu gis ni langage yi léegi dañ ko banaliser aussi léegi nit ñi dañuy wax n'importe comment nit ñi léegi seen wax dañuy topp tendance yi fekk benn wax bu xew boo xam ni amul benn valeur ñu topp ko léegi comportement yi aussi itam ci wàllu colka yi dañ ko banaliser décolte bi ci mbedd bi nit ñi dañuy solo nu leen neex te loolu dafa bokk ci liy protéger nit ki dafa bokk ci liy déterminer personnalité ndax dañu wax ni personnalité nit ñett a koy déterminer mu wax wala mu jëf wala mu comporté wu ñett yooyu nag bu fekkee yooyu yëpp dafa am problème bu waxee dem ci tendance yi bu jëfee dem ci contre valeur yi bu comporté wu aussi itam nga xeeb ko kon la amul li ñuy tuddee al shaxsiya al muslima la personnalité musulmane daf koy daf koy perdre moo tax yooyu rôle la ci parent yi ñu fexe ba yar seen doom yi ndax yàlla nee na eh, doom yi xale yi yàquñu xale yi da nee na mag ñi ñoo yàq xale yi te ci lam yonent bi la ko jaarale parce que moom qu anfusakum wa ahlikum naaran la wax mais yonent ma wax ni kullu mawludin yuladu ala al fitra ku judd rek sell nga waaye bu dérapé rek c'est parce que parents yi ñoom ñoo jëlu seen responsabilité ñoom ñooy désorienté ndaw ñi ba voie bi ñu jëloon ñu ñu wàcc ko kon nag faaw ñu dellu siwaat ci ci cadre boobu noonu. léegi nag Oustaz bu dañuy dugg ci tomb bi gën a am solo nga xam ne dañuy waaj jeexal tomb boobu mooy maanaam topp gu ñuy topp nit maanaam xam nga bu ñu waxee jukko bu wàcc. bu fekkente ne jur moo ko njëkk a wane doom da cay topp da nekk ci kër goo xam ne kañ fay topp di ko sujjóotal di ko sukkal di ko raamal la tax loolu mooy lan na mu mel la mu am walla la mu yore ba tax loolu di jur di jur di jur di jur jafe-jafe par rapport ak ñu mu bokkal pénc par rapport ak ñu mu bokkal kër par rapport ak ñu mu bokkal dund est-ce que alal walla situation war na tax ñi gël nit teg ko ci kaw nit. waa xam nga benn tubaab dafa wax benn wax boo am solo wax ni meilleur cadeau bi way jur di offrir doomam mooy éducation waxul nii booy éduquer nit ki da ngay amee moyen pour mën ko éduquer. nit mën nga ko éduquer. ci situation bu mu la mën a fekk parce que éducation du du lu matériel mais lu lu lu palpable la loo xam ne nit da ci war a mën a teg loxo. am na benn bindu ko arab boo wax ne li waral jafe-jafe yi am léegi ci jamono ji li waral muskilaat yi am ci wàllu yar. parce que kiy yare moom moo amul lu muy yare ndax arab moo ne faaqidu shay'in laa yu'tihi loolu tam lu jar xel la li maa waxoon ne on n'enseigne pas ce que l'on sait mais on enseigne li xam nekkul li nga mais li nekk ci yow loolu ngay loolu ngay jàngale kon loolu tam lu jar a bàyyi xel la euh, léegi na yéen yan solution nga gis ne mën na dimbale ci yar mën na dimbale ci defaraat ko donte ne yombul. waaw ku wax jàngoro wax euh, la cause jàngoro war nga indi solution. solution bi ne yaakaar naa du ñun ñoo koy définir mais ki bind nit ki nga xam ne alaa ya'lamu man xalaq wa huwa latiful xabir te mooy yàlla subhaanahu wa taala moom moo njëkk a joxe solution solution ba ci njëkk mooy ñu delluwaat ci suñu source parce que source bi damay dégg ci suñu maam Sayyid Cheikh Ahmed Tijani muy wax ni source bi source bi ñett la alquran yàlla ak yonent bi bu dee alquran wane na ni inna hadha alquran yahdi lillati hiya aqwam bu fekkee da nga bëgg a tegu ci bonne voie nee na alquran doy na ci parce que mën na orienter nit mën na éduquer nit mën na forme nit parce que dikr la ndax mémoire la boo xam ne bu nit ki waree fàtte lettre de mission bi ko indi woon bu ñu fàtte ni ci inna arabna al amanat ala samawat nit la yàlla mujj rendre mission boobu noonu kon pour mu mën a véhiculer mission boobu noonu faw mu am benn mémoire bu koy rappeler fi mu war a teg tànkam te mémoire bi mooy alquran. mooy beneen bi sopp beneen bi mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walakum fi rasulillahi uswatun xasana yàlla nee na bu ngeen soxlaa modèle universel boo xam ni incarné na mbooleem valeur yi nee na Muhammad sallallahu alayhi wa sallam doy na ci. loolu nekk ak ay soxnaam. ndax xam nga sànq li nga wax ci yar bi. si soxna yi fa la delluwaat. te man damay faral di wax benn baat te dama koo gëm te yaakaar naa ne danga ko boo ko déggee. dama naan yonent bi li mu daj si soxnaam si njaboot kenn daju gu ko te kenn du ko daj. waaye li ko soxnaam sonal aussi ak li ko njabootam sonal. kenn amul kenn koo xam ne sa njaboot sonal la ne la li nu tollu te amul kenn ko koy daj aussi. menti bi dañ lu nekk waaye comme dafa nekk koo xam ne dafa ñëw pour jàngale mooy muallimul bashariya am na épreuve yoo xam ne faaw yàlla teg ko ko parce que bu ko jiitewul bu ko jiitalul woon ci moom rek bu ñu ko tegee mu xaw a diis mais daan na ci daj lu nekk day daan taxaw en tant koo xam ne prophète la mais mu nekk éducateur daan nay wax ni allimu awlaadakum parce que fa innahum maxluquna min zamanin xayru zamanikum nee na waajal leen seen nempant yi parce que dinañ affronter jamono boo xam ni du bokk ak seen bos. moo tax ngay dugg ci kër kër gi am yaay am baay maam xale bi am na yaay am na baay waaye am na beneen yaay am beneen baay boo xam ne yaayam ak baay baayam yëguñu ko mooy xale bi li muy jëfandikoo te loolu danañ ci ñëwaat danañ ci ñëwaat incha allah beneen yoon maanaam nga yaa nga yar sa doom ci kër gi mais am na keneen ko koy yar te yëguloo ko te kooku mi ngi ci biir kër gi. loolu lañ tuddee atafakkuk al usari dislocation boobu am ci côté famille yi mm-hmm. xam ni ku ne yaa jur sa doom mais tey daanaka yilifa yilifatoo sa doom bu ñu dellu siwaatee ci solution yi kon ba ci jëkk mooy faaw ñu xamaat suñuy source del delluwaat jàngal nit ñi alquran mu mën leen teg ci bonne conduite bu ñaareel bi itam ñu am repère wala li ñuy tuddee référence tey damay dégg ñuy tudd baatu idole mais boo xoolee ñi ñu jël comme idole ñëpp kenn matu ci idole maanaam royukaay royukaay parce que yàlla waxul ñu jël idole mais modèle la ñu wax parce que bu dee yonent bi moo man nekk uswa mais ku dul yonent bi wa nga mën a nekk kon xudwa xasana farata la ci ndaw ñi wutal leen repère mais bu ñu topp star yi topp vedette yi te pourtant am nañ fi ay modèle bu dee jigéen ñi nañ xool maam jaara buso maam Fawade Wele waxuma sax soxna yeneen tibeeg ñu jëkk ñooñu mais ci suñu mag ñii yi nga xam ne ñoo fi jóge barki demb mat nañ modèle star yi war nañ nekk modèle war nañ nekk royukaay ndax ñoom li ngay xoolee kenn ne kii nangam la ñoom loolu lañ nekkee nit ku yàlla bind def si ñoom ay responsabilité ñoom dañoo war a conscient ne ñoom dañoo war a xam ne ñoom dañoo war a nekk royukaay loolu ñoom dañ ko war a xam seen entourage aussi war nañ xam loolu c'est-à-dire nit ki nga xam ne xam nga sànq ñu ngi koy wax avant ñuy toog nit ki nga xam ne leader d'opinion la am na ñu koy déglu am na ñu koy suivre am na ñu ko bëgg am na ñu pare dee pour dee pour moom kooku war na xam ne mission mu ëpp na lim ko foog. mais ci charte. waaw fekk moom mu bàyyi daara yonent bi orienté ko. mais bu fekkee dafa nekk musulman de non mais du wane ci comportement am luy wane ni lii jullit war na comporter woo loolu kooku pour mu mu lu mu nekk nekk porteur de voix lu mu mën nekk nekk star yàlla na nekk star euh, planétaire sax waaye du mën a du mën a parce que yaa wax sànq faaxidu shay'in laa pay nit ki li mu mënu li mu amul mënu ko inculquer ci kenn loolu itam problème la du mat a bàyyi xel la. Hmm. ba solution yi. gannaaw yàlla ak li ñuy jàngale alquran sayyidina Muhammad waa surtout ñu xoolaat suñu système éducatif bi aussi xool acteurs principaux yi seq éducation bi. njàng meeg njàngale mi parce que bu ñu waxee jikko faaw ñu ñu wax yar ndax ci école la ñuy préparer nit ndax dañu wax acteurs principaux yi juróom lañ ba ci jëkk mooy al usra ma famille. malheureusement famille dañu raté seen mission ndax bu jëkkoon famille da daan am bàjjan am yaay. am maam am leneen mais léegi dafa am lu ñuy tuddee famille nucléaire mooy famille boo xam ni baay bi la yaay ji doom bi bon bi ak xaj bi biir famille bi léegi associé tuñ ci kenn dañuy jël seen appartement fale di dund seen dund individuellement famille nucléaire yàq na lu bëri ci biir éducation léegi ñaareel bi mooy euh, mbedd mi parce que loo yar yar te bu génnee ci mbedd mi ñu désorienté ko loolu itam problème la kon faaw ñu waajal mbedd mi ndax li arab yi naan al bi ayata athar dañ ni environnement dafay influencé al insaanu ibnu bi atihi sociologue yi wax nañ ko wala wala psychologue yi bu ñetteel bi eh, mooy école mais waxuñu école boo xam ni quatre murs la rek mais école boo xam ne dafay am éducation bu baax édi waaw école buy dund malheureusement suñu école léegi dundatuñ moom la benn kilifa bu baax waxoon ni Euh, dañuy tudd sax baatu ministre de l' éducation nationale mais mu ni bàyyi boo ñu tudd ministre de l' parce que éducation amatul ndax ki nga jàng jàngal ba mu war a dem université nga ni yar nga ko te bu meree toj kaar yi ci dëkk bi yëpp kon kooku xamul ni kaar yooyu muy toj al alalu boppam la kon éducation bi raté nañ ko foofu ci école yi. quatrième acteur bi mooy al am te mooy média tey média bi li mu yàq ci éducation kenn xamul lu mu toll dugal ci internet bi n'importe quel site ku mu neex nga génn saaga ko ci internet bi. ku mu neex nga publier lu la neex site pornographe yaa ngi ci kenn kenn contrôlé wu ko te même pays tubaab yi sax léegi jël nañ ci ay mesures am na pays yoo xam ni yenn sites yi pour nga accéder ci c'est difficile mais léegi ñun banaliser nañ lépp cinquième acteur bi nag mooy ad dawla te mooy état état bi moom itam dafa euh, jëlatul responsabilité am ci wàllu éducation parce que moom moo war a coiffer yooyu ma tudd yépp pour mu mën a tegu ci ci yoon bi mais malheureusement juróom yooyu yëpp tey bu ñu waxantee li nekk ci société bi am na problème. oustaz amul sixième ndax juróom yi nga fi wax mooy famille mooy mbedd mi mooy école bi mooy ilam bi maanaam média ak état sëriñ si aussi am nañ ci responsabilité ndax Sénégal jeune bu la gën a ndaw boo ko waxee mu ne la barki diw da lay waat tuddal la tuddal la turu kilifa bu màgg ay kilifa yu màgg lañuy tudd loolu nag. ndax amur la bu ñu am lu ñuy wax ñi rek di ko wax barki diw barki diw te mu wóor na diw moom muy waatee oh, maanaam la muy def jàngalewu ko nanguwu ko accepté wu ko léegi nag ñaari mbir moo am soit ñoom ñooñu euh, dañuy waatee kilifa yi rek mu nekk benn genre ay slogan yu ñuy yëkkati mais xamuñu leen jànguñu leen toppuñu leen te loolu tam pertement la lu jar a bàyyi xel wala sëriñ bi lam war a jàngale jàngalewu ko lam war a taxawee taxawewu ko loolu tamit tooñ la. Euh, daw responsabilité la waaw kon ñaar yooyu faw am na benn bu si am. c'est important li tax tudd ma sëriñ ndax structure laa doon tudd mais bu ñu nee école sëriñ saa ngi ci biir ndax ñaari école ñoo nekk ci réew mi école bi nga xam ne culture tubaab yi moom lay jàngale ak bi nga xam ne culture daara ji lay jàngale faaw li ñuy tuddee attaayush bayna bayna thaqafat maanaam cohabitation entre les cultures culture occidentale ak culture islamique lu ne la ca baax ñu jël ko Euh, li bon ci yeneen culture yi ndax lislaam amul lu bon ñu ñu bàyyi ko société yi nga xam ne ñoom ñoo ko ñoo ko kii mais bu ma waxee sëriñ si ñoom ñooy école yi ndax ñoom ñooy jàngal nit ñi ñooy former nit ñi te itam ñi ngi ci juróom yi ma tudd sànq yëpp ndax dañu war a nekk ci média bi di ko contrôler ndax ci seen message la bokk ballixu anni walaw aaya média tey moo ci gën gaaw mbokk mi xam naa liñ naan euh, mbir mi du jeex ndax euh, li duuf si nag wi xajul ci cin li tey xëy na am na yeneen yoo bëggoon a wax sax te mënoo ko woon indi am na yeneen yoo bëggoon a àggale te mënoo ko woon a àggale waaye dañ lay bàyyi rek nga tàggoo bu fekkee am na looy tàggatooyee rek mu jeex si 30 secondes ñu pare incha allah. waa xam naa rek di rafetlu émission bi wax dëgg yàlla am na solo te yi bokk na ci jéego yi nga xam ni mën na gën a soññaat ndaw yi waaye may lancé waat appel ndaw ñi ñu gën a bàyyi xel ni ñooy yaakaaru ëllëg comme ñooy espoir u ëllëg nag war nañ leen préparer ci domaine yëpp sur le surtout sur le plan spirituel parce que boo nekkee jàng management te ci wàllu spiritualité zéro sa sa bopp ngay servir mais doo servir sa sa diine doo servir sa sa àdduna doo servir sa àllaaxira te yàlla nag ñaari tànk yooyu la ñaan ñu taxawee ko wabtaxi fii ma ataaka allahu daar al axira sa tansa nasibaka min addunia xam naa loolu moo doon kàddu yi ñu ngi jégalu bu baax salaamaaleykum wa rahmatullah macha allah Seydina Issa kon yéen ñi nga xam ne yéen a doon seetaan ndaw ak diine na xam ne rek jikko mooy jiite lépp mooy tax lépp jag jikko mooy tax lépp jaar fa mu war a jaar waaw bu jikko amul rek dara dul jag ndax euh, euh, nu raqixu duniyaana naa tamziqi diinina fala diinuna yabqa wala ma nu raqixu bu fekkee ne jikko dafa nekk am mbubb wala sër boo xam ne heure bu jafe-jafe amee ci pénc mi ñi dàppati sa sër booba taf pénc ma bu yàggee pénc ma du jàkk te dootuñu amati sër bu ñu oddoo kon nag lu jar a bàyyi xel la yow mi nga xam ne yaa jiite ak loo man di jiite yaa jiite kër yaa jiite bërëb bu liggéeyukaay yaa jiite bërëb bu jàngukaay yaa jiite réew yaa jiite diine ja yaa jiite yaa jiite xamal ne am nga part de responsabilité si yàqu-yàqu jikko yu tey yow mi nekk bàyyi nekk ci kër te yaa ngi fexe ba chaque jurwaa kër gi dinañ lekk dinañ naan dinañ fay courant dinañ fay ndox te veillé woo seen i jikko xamal ne li ngay def amul taxawaay amul njariñ yaa ngi yàqal ta bopp yow mi nga xam ne da ngay sëy di def lu nekk pour sa soxna kontaan di def lu nekk pour sa borom kër kontaan waaye veillewoo si jikkoom ci rafet xamal ne li ngay def lépp amul njëriñ ndax yaa ngi yàq yaa ngi yàqal sa bopp yow mi nga xam ne yaa ngi liggéey def tout pour sa patron am si yow satisfaction yaa ngi def lu nekk ngir am ay promotion yaa ngi def lu nekk ngir ñu tudd la ak ay diplôme wala leneen ak leneen te bàyyi woo xel jikko xamal ne li ngay def lépp amul njëriñ ndax bés dina ñëw nga xam ne jikko rek mooy jëriñ borom kon tey dañ doon waxtaan ci jikko ak njëriñam si askan wi ak yàqu-yàqu yi nga xam ne jikko yi am na ko naka la ñuy def pour dabaatal loolu liñ siy wax nag lu néew la liñ ciy wax mën na am sax du indi solution ndax mën na am sax ñun ñu koy wax waruñu ko wax waaye jàpp nañ ne comme que média dafay yàq mais ñun suñu média dafa jóg bokk na ci liggéeyam jéem a joyanti ak defar jikko yi ngir dimbale way juri dimbale suñu bopp kon ndaw ak diine buy jeexal dafay jaajëfal mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi koy seetaan mbooleem ñi nga xam ne ñu ngi contacté fii ci réew mi ak bitim réew di ñu encouragé waaye di ñuy dox itam ay yoon yi ñuy jaar ngir gën a jagal lu gën a jagal lu gën a yembal émission bi kon mënu ñàkk gërëm ñi nga xam ne ñu ngi jàppale ñi si jiitu nag moom mooy Leuz TV nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak ñun waaye tamit di liggéey di jaajëfal tamit waa Sen Presse ndax Sen Presse mën nañu wax ne ñi ngi liggéey ak Leuz TV par rapport ak ndaw ak diine di jàllale itam émission yi seen site internet boo xam ne dañ ciy liggéey ñoom di ko liggéey di si jàllale ngir message bi gën a mën a law di jaajëfal soxna su tedd si comme ni ñu koy wax di wax toujours soxna Ndeye Diaw Diop ñu ngi lay jaajëfal bu baax yow ak seen waa kër ñëpp ndax du ma leen lim su ma leen limee damay juum macha allah ah <laughs> ak soxna Aïchatou ñaari Aïcha sax Aïcha ak sama Aïcha di jaajëfal ñëpp di jaajëfal nag kenn koo xam ne tey wax dëgg émission bi mën naa wax ne moom lépp ci moom la jóge mooy Oustaz Babacar Niang Oustaz Babacar Niang li ma la yow xam nga ko kon yàlla yàlla fay la yiw ñi ngi déglu conseil yi ñi ngi déglu yëpp kon jaajëfal ñëpp équipe bi ñu ànd ak sama gars yi nga xam ne ñi ngi nii ndax wolof nee na euh, xat da ngay xuloog taw te kay seelu yëgul waaw yow mi koy seetaan xamal ne am na koo xam ne daj la lu ne pour li ngay seetaan mën a jag ndax ñun li ñuy wax ni amul njëriñ mais ñoom li ñu def ba ngeen jot ci moo am njëriñ mi ko commencé ci caméraman beeg preneur de son beeg monteur beeg ak borom kilifa gi nga xam ne moom moo ñu may ban mën a def lii kon ñu ngi jaajëfal ñëpp di jaajëfal itam suñu invité mooy suñu mbokk Issa di leen jaajëfal yéen itam wax ji yàgg na yàggul waaye ñu ci bëgg rek mooy yiw di leen ñaanal ngeen julli ajjuma ci jàmm bu ngeen jullee ba pare itam bu leen ñu fàtte ci ñaan ngeen suivre seen waxtaan ndaw ak diine beneen yoon fii ci Leuz TV incha allah jumaa mubaarak